mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Thielly Thielly door na léegi Thielly door na eh Thielly 2 Boy Walo fay na Boy Walo Thielly 2 Boy Walo daw na jëli Thielly Thielly ngay door ñoo ngay doorante Boy Walo xeex ñoom ñaar Boy Walo Thielly 2 eh Boy Walo door na góos bu daal daw na jël ko da koy laay lay la laa Thiely daan na ko jël bu rëy Thiely du ko jox rek daw mbëkk ko Thiely daan na ko wala boog daan nañu Thiely Boy Walo daan na Thiely Boy Walo jël bu ndox mi nag Adama ndox mi day yàq làmb ji ndox mi.